deuxième point bi tax nag ñu gën a woo journaliste yi problème mu politique la waaye tamit problème mu investissement commune bi la ndax ñun dañoo gagné woon benn projet ci ministère des collectivités locales maanaam dañoo alloué woon ay cantines yoo xam dañ ko woon tabax pour le marché international de fruits et légumes de Noto muy 60 cantines cahier de charge bi lu ci nekkoon Serigne Mbacke Serigne Abdou Bare Mbacke dolli gagné ko. mi ngi ko waroon a mi ngi ma waroon a jox clé cantine yi le 22 bii passé ndax cahier de charge bi looloo ci nekkoon mais constaté na ni liggéey bi am na retard ndax ba fii ñuy wax ak yow euh, bu ngeen demee ci cantine am na yoo xam ne commencé gun ko am na yoo xam ne tey ji lañ teg urdu yi am na yoo xam ne sax demagul fenn te nag comme dañoo yor projet état. te moom toujours daanaka fi ñu ko gën a féete day ŋàññi le président Macky Sall ci doxale ni muy doxale ci réew mi ndax gis nga xoon ci parrainage bi robam bu xonk curu la sol mu takk ab écharpam di ñaawlu li président def ci parenage te yaakaar naa ni li ñu war a ñaawlu du affaire parrainage ndax parenage li xewoon ci élection locale yi gis ngeen ko 42 listes bu ñu jëmee présidentielle mu nekk 100 listes loolu gënul ci démocratie Sénégal ndax pëccëxoo lay doon ndax bésub lëmm daanaka fanweeri nit wala ñaar fukki nit ñooy voté ndax candidat yi bari waaye li nga xam ne mooy daaneel Sénégal di ko biimeel mooy nga gañe projet de l'État entreprise bi nga gañe muy sëñ Abdou Bara Mbacké Dolly ñu jox ko avance de démarrage de travaux mu waroon na liggéey liggéey bi rendre collectivité locale bi ay caabeem vingt 22 juillet ba léegi ni liggéey ba xaajul rax ci dolli sax ñun bëggoon nañ liggéey ba gaaw ba birig yéen jotoon na birig ak béton boog yëpp ñu aboloon ko ko te loolu lépp mu ngi ci biir te taxul liggéey bi àgg kon nag dañoo bëgg a wax ni yan façon comportement yooyu du comportement yuy jàppale Sénégal du comportement buy jàppale les collectivités locales kon nag ñun en tant que élu comme dañoo tooñ nag te ñu baree ngi soññee ci cantine dañoo bëgg a jot suñu place kon ñu teel a leeral ni ñu neen li tardel cantine yi ci ñun ndax sans obdère dañ koy set ndax moom bu nekkee opposition président Macky Sall xoolul xeej seen jox koy sànce li waroon tey vingt 22 juillet bii mu ne monsieur le maire say caabee ngi nii su ko dee askanu Noto jot 60 cantines continué waat tabax waaye tey ji lee fii ñeenti weer sax du pare kon yooyu lañ bëggoon a leeralaale ñu wax ko ndax buñ ñu jër ta wax jar naa wax ndax ñu ci bari dañ naan cantine bind woon nañ co waaye gisaguñu suñuy caabi te looloo ko téye te suñuy brique sax joxoon nañ ko kon donc daal ci ñaari point yooyu moo waraloon nit ñi waxtaan